waxuma kenn dara. non dinaa waxtu léegi. sam baab moom moo woo sam baab. ak sëñ baam dañu waxtu léegi ñun lu mu bëgg rek lañ bëgg ñun waaw. a waxtu ah, bi mais sekel la rek sekel rek ñun lu champion bëgg rek moom leen bëgg ba ak sëñ Bamba moom lu mu bëgg moom leen bëgg ñun su woot bëggee ñu watu tey tey dañuy watu léegi bu bëggee ñu bàyyi jour jour sax ñu watu gànnaar mooy loolu waaw ba ak sëñ Bamba ñun lu mu bëgg rek lañ bëgg ñun billaahi ñëppay watu man damay ragal sax balaa yëf yee jeex ñun ñu wataale nu ah, mais nan xam ne ñun dañuy liggéey ah ànd ak Modou ànd ak Ama kii moom daa teel a watu moom <laughs> baa yaa ngi seen nel yële yéen ngi seen nel yi ah ngi seen nel yi waaw mais bi bala mais bi bala waaw ndel mi waaw ah, wat Ama ah, Baldé waaw mooy wat de waaw li mu bëgg rek lañ bëgg barki seer waaw li mu bëgg rek lañ bëgg bëgguñu leneen lu Ama li mu bëgg rek lañ bëgg waaw roi bi roi bëgg mu ñëw tegu si roi bi waaw roi bi nañ ci soxla quoi mu ñëw tegu waa Pikine gi yëppay watu waaw arène nationale dimanche di ngeen gis ndel yoo xamante ne barki sëñ Ba man dama ko tax a ndel bi rek ndel bi rek arène nationale dimanche tout ndel waa Pikine ñëpp ndel waaw ama woote loolu de. man ndel. yaa ngi si biir yow doomu Pikine nga yow. watul ndel mais man mu sakk karaw ma neexee ah? ko taf. ndax la Ama Baldé ñu ko santaane Ama Baldé ñu ko wax woote leen dal ñun dañoo bëgg Ama Baldé dem boo jeex tak dem boo jeex tak dem boo jeex tak dem man Ama Baldé xëy suba teel ma ñoor gaañ lekk ndekkeegu ma sax maa toogee bëgg naan kafe ne Gambia kaay aa ah, Gambien comme noonu ma ne waa comme noonu kay ma dem jënd sama lancette ah daa baax de moo lancette sax. moo ma lancette jënd rasoir wootu ma ndeyal. <laughs> ama dalido omena jël na pe ama dalido omena jël na pe lii la waa keroog dama toogoon journaliste ma Ama Baldé Ama Baldé ba pare na wala pare guul ma barki maam Seera Fall Ama Baldé pare na. ndax Ama Baldé mu ngi fële di lido ku pareegul du dem lido. Ama Baldé ah ma ngay laaj ji ne Ama nekk nii <laughs> Ama Baldé muy fii <laughs> non non Ama koy nëbu Ama dama koy nëbu nii. dama koy nëbbu. ah waa Sénégal yéen laa nuyu na waa diaspora ah. ah fan si Jinne Jinne ah fan si Jinne Ama Baldé yéen laa nuyu na oh, yéen nan all for people nan naka waan ah big up big up big up big up. na jël na paie. amul na paie bi duñ loolu. borom ndel bi rek la ñuy topp Ama kase. amul leneen tapatuñ loolu. mais Ama chaque lamb mu indi lu bees. waaw mais loolu la xale la champion la jàmbaar la jàmbaaru Pikine kenn la muy Ama Baldé moom la ñuy ñu keneen ah. comme sa mbër nañ ko téye. na ngeen na ah, nar mooy li ñu rek ak gis lu bees. am na keneen kuy yóbbu muy wax. ñëpp nalu gis yóbbu muy wax <laughs> nan doole ku dàq bëre ku gën a féete xale yal na ko yàlla may ndam wax boobu man laay dëggalaat ku doole gën a féete xale yal na la yàlla may ndam ndax ñu dañoo xam lu ñu yore bu la dinañ gis lu bees tax lu ñu musul gis. bu soobee yàlla Ama Baldé yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal la cinq yàlla na ko yàlla may ndam bu kawe njottam waaw ndax nit ku gore la ku baax la ku dëggu la ci lu muy def waaw ñun ñun Ama la ñuy la ñuy topp topp keneen keneen boo amee sa leneen nga téye ko wax bi bëgg na nag ñu ngi dégg ku nekk di wax ñii naan ci lii lañ toog ñun ñun ñun xam nañ ci luñ toog fii Pikine la waaw ñun yaa xamtewuñu waaw ba le cinq nag le cinq nañ waxaat bu soobee yàlla. Eh, wootu waaw dafa am ñu ko baaxoo am noo xam ne ñoom mooy lool noonu lépp ay mbir la. waa ñun yaa xamtu ñu fu ñu jëm bu soobee yàlla la cinq dañuy indi. ak rek ñu échange gi daal nañ bu yàgg victoire dañuy fete nii billaa wallaay ñu borom ndel bi rek dañuy toog parce que Seydina Mohamed ñëppay watu ndel xanaa dëggal ma la xanaa doo xippe yow. ñun ndel rek la ñuy topp lu dul ndel topp ñu koy sànni nii ñu ko ku ku watul ndel bëgguñ lay sànni nii war nañ patro war nañ patro yëpp ñu watu ndel capal lii. lépp jaam ah kenn du la wax leng see ma def nii borom dëgg bi moo ma def nii ah mais mooy loolu nii laa koy bàyyi borom dëgg bi nga bëggee nii déggoo ma de moom moo ko bëggee nii nii lañ koy bàyyee ñun moom rek la ñuy topp ku am leneen looy topp na nga ko téye. barki Serigne Bamba bu la sengee gars yi xam ne lépp dëgg la billaay wallaay wa taalaay bàyyi juróomi at la toog bëréwul essange addunaa ko namu ñëpp a ko namm te barki Serigne Bamba Mbacké bu ñëwee day day wan gars yi nameel bi wan leen lépp wan leen li moo leen raw fuuf moom la pël bi déggoo gars yi naa la rocc sa piis def si pël bi xanaa ñun borom rëcc sa piis daa lay wax wala espresso wala tigo nga sànni ko def si pël bi pël bi moo xeew mooy piis bu bees bi wala déggoo loolu yow moom la jeunes yi di topp moom la ñëpp di topp barki maam ma réew ma sëy ba moo loot bu doxee si kawam laa lay wax ñàkk na moom xam na luñ koy wax bu baax a baax lu garaaw laa lay wax. na. Thierno ah. Ama gaañ na non xam nga rek man maa dëgër boobu quoi. ñun moom xamoon nañ ko moom xamoon nañ carrément tey moom ku ñëw da ngaa war a watu. rek lañuy toog. waaw tey moom ku ñëw moom boo watul da lay wat ñun ñoo tooñ lépp ci waaj combat bi rek waaw xam nga tey moom fi open préfet warul yomb bu dee dëgg la rek warul yomb léegi dafa war a folot leer nañ ma waaw. le cinq dañ koy gën a yeesalaat. diñ koy gën a yeesalaat le 5 loolu noonu xam nga ay le 5 fête la pour muy leer fête la loolu fête la fête nationale la rek fête nationale waaw moom rek la ñuy toog fu mu ñu jëmale rek ñu dem fa. jàmbaar complicité bi ngeen am ngeen ak Ama bëggante bi bu mu leen wat. ah, ah mooy suñu pape moo ñu xamal lépp moo ñu yar dañ kaa topp mbapat ba tey nga 5 la gaa yi xam lépp su tey tey rek day leer tey open presse bi lépp la ñuy leer lépp. doo gis karaw Modou Lo war a wana Thiès nga pël bi nga dugg pël bi da ngay laajte waa Ama mooy Sénégal dégg nga jàmm si yéen rek mooy Sénégal Ama Seul wax wax bëri wax la le cinq benn jooy la une minute trente secondes la barke sëñ Atex Mbacke mo une minute trente secondes la boo yéexee doo gis Ama Ama yebuñu ba ñuy yàqam bi fët la fët Lo ni ngay dóor mu daanu fët dóor mu daanu fii la nga suul pile Pikine. waaw sant yàlla baax waay waaw sant yàlla baax moom lan la. waaw ñun ñoo ko fa am ñoo ko fa am. tegtal la wala ko am daal xam naa ne moom la 5 moom bu neexee yàlla yonent bi moom ñun ñooy borom la 5 boo xoolee nu mu leeree. waaw bis moom noonu lay leeree bu soobee yàlla bu neexee yàlla. amaa suñu xëcc yóbbu ñu nelu si nga bokk wala yaa dama sa boppu nelu. maa maa sooxee yi. waaw waaw man na njëkk laal. lan ngay wax Modou Lo jour bu waaw ah, Modou ah, ñëw rek daanu dem ñibbi bu neexee yàlla non Modou Lo bu sa def arro mais lamb ji lamb ji lamb ji si lay demee arro bu soobee yàlla musul am dem ah, musul dem arro mais la lamb ji nag dina dem arro bu soobee yàlla pël bi la am pël bi waaw pël bi la am non déggoo li xanaa ñu ñoo ko waaw ñun ñun dañ ko soxla roi bi dañ ko soxla waaw ñun ñun ñun déggoo li ma ñun Modou Lo bañ ko bañ ko dalee siibur daa yàgg bañ ko dalee siibur dafa yàgg ana ñëw daaw na dem ñibbi rek bilaa walaay moo ñu tax a def suñuy ndel moom rek nañuy topp mais combat bi naka ngay préparé fu nañ ko moralement physiquement confiance waaw di xaar tamit xam nga jaam ak pexem yàlla ak ndogalam day. mais mbër moo xam ne mbër bu mën a bëri mbër moo xam ne cinq ans ngi bëriwul waaye Sénégal a doy waar mooy musul dem ardo dina dem ardo nag ñun la am ama moom da ngay xeex baa nga bëre wala nga génn làmb ji ama balde la dina xeex wala mu bëree wala mu génn làmb dina dem ardo li bëri lan naan instant mu toll nii koo jekku si gàllaaj Modou mënuñu jekku si gàllaaj mënul jekku ama si gàllaaj amul ju ko gàllaaj di jàpp ba nga teree ba nga teree dugg dunu ba léegi mosoo gis ama làmm jot combat nga gis ko mu am benn faaye boo xamante ne da naan lii xaw ma ko si moom chaque jour jom jàmbaar ngay gis si moom barki sëñ Fallou te loolu lay indiwaat Modou Lo mënuñoo jàpp si gàllaaj Modou Lo amul gàllaaj bu ñuy jàppee Modou Lo mystique lay def day nappaate Modou Lo day mystique de ñun mystique jaaxuluñu kuy mystique te incha allah xoolal yàggatul dimanche la dimanche la waaw yàggatul dara dimanche la waaw kay. naan jàmm mais Ama la gaan moo ñu ko jaral moo ko jaral boo ñëwee dañuy ñëw sa ari mi arat sa araan mi arat boo ñëwee demee ñëw boo ñëwul demee ñëw jinne bi le mandi moo de ku ko xamul dégg nga ko wax baaxul yàlla ñu yàlla may gudd fan ak wér gu non daa garaw moom la ñuy topp moo ñu ko jaral bilaa moo ñu ko jaral xam rek ay mbir quoi bu mu waxee sax damay jooy mu ne yaatu na jàmbaar kontaan naa. que jàpp naa tey ah, ama bu ma newoon fanaanal fii ma fanaan fii jaral na ma ko temps ba ma xamee sam bopp ba léegi ama laa topp xam rek man ma wor. moo ko jaral moo ko digee lu baax la ma woon man gor laa ku ma fay lu defal lu ma defal la lu baax bilaa wallaay rek. ama lu yor yéene na ko doomu aadama yi bugul kenn am problème billaa wallaay ama rek xoolal gis lépp ay mbir gaan lépp ngir Ama Baldé yàlla baax bu bis wax baaxul